عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا واكتفي وأنفي بإبليس عني متدبا إليه الهداي وهو مهن وواسع له الملك ثم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري به دفع والجلب رديت به ربا كريما مكرما وقال الهدى والحرب والبار والتلبى جزائي على المولى بردي ذوي الفراق ñamlaat dafay koo xam ne waxtu wi mu ñëw waxtu mu jaddit la ndax assasine moom moo ñu leeral nañu euh, kuy jàngale sëñ Tuubaa tàmbalil assassin te sëñ Tuubaa ku ne xam na ne euh, jiit gane na àdduna lu jiit assassin waaye nag lu waaye di wax ci moom tàmbalil assassin ndax assassin ci la ko suñu borom di liggéeyloo ci jànn ci la waxee ne euh, yàlla suñu borom moom may liggéeyloo amara nii rabbi bi an usarriha bi an na nii malazun wa mafzan fa man araadal xayra fii tilte yi fii kilte yi daaree ni fal yarus bi at moom la ko wax waaye sëñ Abdou Lahad tamit ci njabootu sëñ Tuubaa bokk waaye wàgg sëñ Tuubaa ku ci ne am na aw xët wooy ubbi moom xët bi mu ubbi dafa tasanteeg ama tasin kon assasine ba tasin xarnu la moom nag bi mu ñëwee dafa ubbi lu bees loolu kon ku ne xam ne ne waa kër sëñ Tuubaa ñëpp kenn ku ci ne xët ba nga yor sëñ Tuubaa la ko jox waaye xëtam wii nag moom daf ñu ci séddee loo xam ne ku nekk xam na ne jamono bu soppikoo li ko déclenché ci Sëñ Abdou Lahad la daf ñoo def ay murit yoo xam ne dañuy xam suñu bopp waaw mu mel ni sëñ Modou Moustapha dafa doon koo xam ne dafa doon fondation yoon ndax fondation kon nag dara gënu ci rëy sanc Touba woo murit yi ñu ñëw fi sëñ Fallou war a àggale dëkk bi li sëñ Modou Moustapha doon def daal di ubbi jumaa ji jumaa ji nag bu àggee ba noppi dëkk bi jekk na mu ne murit nag nañ leen wan nan ngeen war a mel ba dëkkee Touba sëñ Abdou Lahad war tere yeeg ni ñu war a mel melokaan weeg jikko yeeg doxalin bi lépp tëral na ko noo xam ne ku ne xam ne ne hmm. euh, loolu moo ko mu cëram la kon yéen li ngeen def hmm. ba indi jàmm di ko leeral hmm. te jàmm àdduna sépp soxla ko mais kenn rek ko mën a maye mu yàlla suñu borom te nag sédd na ko sëñ Tuubaa diggante si jablaat koo xam ne defaral na lislaam xam nga ne moos defaraale na daara Hizbut Tarqiyyah man su may tudd daara Hizbut Tarqiyyah ci si dama naan toq ndox laay wax ci géej ndax ñun dañoo bokk ci dongo yi nga xam ne ci moom la ñu gimmee lépp loo gis ci Hizbut Tarqiyyah sante ko Sëñ Blaat waaw maa ngi tooñ sànq kii ne ko jamono yi laat Blaat bu ñëwaan fi fekk euh, euh, Abdoulaat Dia mu tëj bunt bi guddi ci niimaa yi la ñuy fanaan boobu Tuubaa gi amuñu fi kenn kon moom moo ci moom lañ daan lañ xamee dara daara ji juddoo ci moom mu wan ñu aw yoon teg ñu ci aw yoon ba tey jii loo gis ci Hizbut Tarqiyyah di ko yéen sëñ Abdoulaye dafa di nag moom moo ñu teg ci aw yoon nañu ku fi toogal sëñ Tuubaa jox leen ko seen bopp te xam nañ ne eh, tey jii ku ne dangay ngay siyaar si ci bésub màggal sëñ laat bu la neexoon ci sëñ mu ndax a ngay jëkk ku fi nekkee ñu teg ci sëñ Siidi ndax njabootu si sëñ Abdoulaye mooy fu buntu kër sëñ Tuubaa ne kooku njabootu sëñ Tuubaa sëñ kon ndefe naa yoon waa ngoog mm, liggéey baa ngoog ñu ngi leen di sant te di leen ñaanal it at mu jot li ngeen mën ba di ko def lii ngeen def nii at mu jot ngeen mën loo xam ne da koy féete kaw fuuf gën koo sori lool ba murit yëpp jullit ñëpp gën a gindi ko xam ne lii rek mooy li liggéey ko am sax jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah jërëjëf sëñ Tuubaa euh, sëñ Youssou ngi lay delloo nuyoo ak ziar bu sëriñ Sidi ci boppam ak njabootu si Abdoulaye Mbacke gépp ak commission culturelle bi ak mboolem murit yi ci siyaar bi nga siyaara si ci bis bi waaye jagleel nag barab bi di exposition bi nga xam ne dañ koo def ngir feeñal ci tuuti ci jëfi si Abdou Lahad ki jaar-jaaram ak njàngaleem loolu ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax defal nga ko daaw fàttali ko ren yàlla ko def at yi bëree bëri fekk ñu ñëpp Seex Xaadim euh, yaakaar naa ne kuy wane jëf yi Seex Abdou Lahad su leen wanee yéen waa Hizbut Tarqiyyah rek doy na sëkk ndax ma ngaa gis ku ne di ko naata bi ab murit laak bi murit ba mu des xisbu xisbu tarxee moom képp koo ci gis rek ma ngaa waat ne kii ab murit la kon nag loolu rek doy na sëkk te loolu suñu Abdul moo ko def ci yéen képp ku leen di ku leen nuru itam kasaalika kon nag ñu leen sant ci jëf ji koy def itam yaakaar naa ci yéen lañ koy jàngee ndax itam ku ne gis na exposition bi mag bi ngeen defal Seexul Xadiim fii ci Màggal Tuubaa ñëwee ngeen boole woon ci mbooleem kuréel yi nga xam ne yëpp dañuy yëngu ci wàllu jàngale ak liggéey ci yoon ba kenn ku nekk wane sa liggéey eh, di seede itam ne barab bii itam ñu ngi leen ci baral ngërëm ndax tey fii ñu taxaw yéen a fi def baas bi yéen a ko fi def li fi nekk lépp yéen a ko fi def rajo yi ñuy wax yéen a ko fi def kon nag yéen dañoo ànd ak yéen liggéey alhamdulilah ci ci saahir ak kon ñu leen di sant ci turu commission bi di leen ñaanal bu baax yàlla gën leen a leen a sàmm nangu leen biir ñu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Abdoulahat dafa nekk modèle boo xam ni fu senegal man toll soo jëlee model boobu dugal ko ci xolu ndaw ñi ëllëg daanu am ay ndaw yoo xam ni daanu man taxawu seen réew ma wax ni sëñ Abdou Lahad waxam doonul woon jamonoom rekk la doon waxal waaye dafa mel ne tey la waxam gën mën dëppook jamono ci yàlla may ko muy gis fu sori di wax wax joo xam ni yenn saa ñi nga xam ni dañ ko jege wala ñu bokkal jamono du ñu xam sax fan la waxe tey de ñaata at gannaaw bi mu làqoo liggéey ki nekk da ngay wax ni tey la waxam gën dë dëppook jamono ji mm. may na nag yàlla def ko mu doon ku yàlla mayoon xam-xam ni ko yàlla mayoon mu mën ko téye alxuraan téye ko sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam téye ko xasaay di kenn mësul gis koo xam ni yàlla maye na ko noonu fu ko neex lay tibbe si alxuraan te lu mu wax li nekk alxuraanu karim lay jël misaale wax ja dëggal wax ja alxuraan teg sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa teg xasaayid sëñ tubaa wala waxu sëñ tubaa waaye nag ma ni yamul foofu borom fit la woon waaw fit moo tax mu man wax si jamono joo xam ni ña waxal yenn saa yi duñu comprendre lu moo wax te mën na wóor ni ko su waxee dana bëri ñoo xam ni daanu jaaxle sa waxam ja waaye daf koy borom fit la waaye gannaaw bu mu amee fit nag yàlla may ka mu doon koo xam ni ku bëri yiw la yiw jooju moo tax mu mën jublu ci képp koo xam dafa bokk moom ashhadu an laa ilaaha illallah mhm. mën la jël taf la ci xolam mhm. li mu def ci diggante këru diine yi kenn du ko fàtte sëñ Cheikh Tidiane si si boppam moo ma nettali la gim ko ganale fii ñu may nettali dem ba mu demoon canaba ak feneen ak feneen sëñ Abdou Lahad boroom yiw la woon maa ngi fàttaliku waxu 1981 bi déglu leen ko seen ko dégloo da ngay wax ni senegal tey la ñu war mën jëfe loolu suñu déggoon jamono boobu sëñ Abdou Lahad gars yi nga xam danoo bàyyi seen danoo bàyyi àll bi dem di taxawaalu ndakaaru yar ñaari peeru dàll war ñaari chemise di bëgg di toltolaan pour jaay ka suñu paree duñu am fu nu dëkk jaaxle sonn lool ñu leen di dàq ñu leen di dàq di leen wax marchand ambulant suñu demoon sa tool ya tey Sénégal xiif du fi am waaw ban leen di wax ni dem leen sa tool ya ngeen gëm yàlla doyloo sunu borom ngeen dem sa tool ya waaye nag am na lu santoon gouvernement bi mooy nga ngeen jàppale leen ba seen toogaay foofu man yomb kon nag loolu programme du gouvernement la xam nga moom soo weesoo si gëm yàlla gi moo woo nit te du si maslaa si doyloo gi mu doyloo yonent bi sallallahu alayhi waaye nag bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa te di liggéeyal sëñ Tuubaa te du si maslaa domaine yëpp daf ko maîtriser gis nga loolu programme de société la programme de société mooy noo fexe ba nit ñi toog ci seen àll ba fexe ba àll ba naat ba nit ñi bay loolu day tax senegal xiif jóg fi seetal tey li noo jëggaani li si ëpp lu nu lekk la te réew moo xam ni li ngay lekk danga koy jëggaani foo toll ci coono ngay dëkk te sëñ Ablaat loolu nu doon dawal kon sëñ Ablaat ku dëppoo jamono la waaye nag bëgg sëñ Tuubaa ba mu jeex tàkk damay nettali rek benn xisa du ma tudd ki nga xam ni moo waral xisa bi xaritam la woon lool bokk si beneen tarixa dafa ñëw fii fekk mbooloo mi bëri lool ñëpp di xëccoo pour gis sëñ Abdou Lahat bi mu ñëwee mu déy que ni ka Mbàkke war na nga sant yàlla de ñi fi nekk nii ñëpp yow lañ bëgg gis te la bëgg gis ki nekk am na lu ma bokk bëgg la ko jox ni ko war nga sant yàlla de sëñ bi ni ko wax naa dëgg wax wax nga dëgg de ba ma yàlla booleeg sëñ Tubaa boole ma sëñ Touba laa war sant yàlla waaye nag maa ngi lay wax leen ñii jàppewul ma ku dul sëñ Touba bala nga ko doon xam sëñ Touba su ñëwoon ma dox ma bëgg dox seen diggante ak sëñ Touba kon man damay jël sëñ euh, dañ may jël teg fee dem si sëñ Touba yamul foofu de ni ko kon man sant naa yàlla bi ma yàlla booleeg sëñ Touba sama koy tiitaroo mu ni waaje nag yow ku war sant yàlla nga yow mu ne ko lu tax tey sa waajur su ñëwoon fii pour bëgg ma gis il faut que wax ma waajuru diw waajuru diw yow sa waajur moo lay tiitaroo man sama waajur lay tiitaroo kon ñu ñaar ñëpp nañu sant yàlla <laughs> jërëjëf sa Abdou Lahad. ñëw bi ñu fi ñëwoon tee nag ñëwu feddali suñu kóllëre la ndax dañu fi teewal famille El Hadj Mass Joxaane ñu àndandoo ci ak suñu xalif mi Abdoulaye Sare ak suñu mag Mor Sare ak suñu rakk aussi Mohamed Sow ñu teewal fi bépp njabootu El Hadj Mass Joxaane ngir feddale kóllëre gi nga xam ni moo doon dox digganteem ak seen Abdou Lahad mi nekkoon sëñ Touba. ñu ñëw nag euh, seet si sëñ Sidi mi nga xam ni moom moo ko fi toogal ak njaboot gi yëpp ngir mën a gën a dundal kóllëre googu ñu indil ko suñu ziar indil ko ziaru bépp njabootu alaaji Mass Diokhane di am te lool yàlla suñu borom bi mu ñu mayee ñu teewee bés bi di ñaan aussi sëñ Mountakha mi fi toogal sëñ Touba yàlla na ko yàlla may wér yàlla na fi yàgg te wér ak moo ko rakkam ak fi nekk yëpp bépp njabootu sëñ